lu toll ci ñaar fukki tonu déchets dinañ ko produire simili buy jot ci biir àdduna bi loolu nag ci ko xamle moo di président Plastique Odyssée muy ab kuréel boo xam ni day xeex lépp luy déchet plastique ci boobu boobule xeex mu lëkkaloo ci ak beneen organisation bi ñu tuddee Endeavour Mining. Euh, et aujourd'hui on déverse vingt tonnes de plastique. bu jot ay moom la ñuy sotti ci biir géej gi waaye li ci doy waar mooy mbalit boobu bu yegsee day tasaaroo loolu moo tax pour ñu nettoyer géej gi day doon lu jafe ci loolu lañ jógee dem fi nga xam ne foofu la mbalit mi di jógee fexe rek ba du yegsi fi nga xam ne moo di géej gi. Le plastique n'arrive jamais dans les rivières li ñu bëgg rek mooy fexe ba teg ay pexe yoo xam ne dañu saytuwaat mbalit bi ba noppi créer ci ay activités yoo xam ni dina jur koom-koom. ñu ngi liggéey ci jamono ji ngir xoolaat suñu filière dal di tànn yile déchets bu ko defee nag ñu dal di koy yóbbu eh, ci centre yi nga xam ne ñoom ñoo koy tànn te mu nekk ci réew yi nga xam ne fa la ñuy amal suñu yëngu-yëngu li ñu bëgg nag mooy dal di sukkali wàllu koom gi ndax nag mbalit mën naa dem ba jur koppar jëwriñ bu ñu denk mine ak géologie fii ci Sénégal teewe woon na boobu leen dajee moom sax fàttali na loi bi nga xam ne nguurub Sénégal voté woon na ko ngir jële fee lépp luy plastique. suñu nguur bi jël na ci matuwaay bu am solo mooy jël nañu bataaxal yoo xam ne mooy tere ñu fiy jaay wala ñu fiy defar déchet plastique mais loolu rek doyul am na ñoo xam ne loolu na xam ne dañ ko tere buñ ko récupérer dajale ko waat. mën nañ ci def loo xam ne day jëriñ askan bi. ci loolu ñaari kuréel yooyu fas yéene lëkkaloo ak yeneen société yu nekk ci biir réew mi ngir teg ay projet yoo xam ne dañuy saytuwaat mbalit bi fii ci Sénégal ak ci Côte d'Ivoire mbëbët bi mooy jële fi lépp luy déchet plastique.